وأكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل شهيدا بتوبات الأقراد من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قيدا دع عدمتنا من لقاء كل آمين بإذني وبعالمين هدى yaay soxna Mbacke nee na lu nekk Cheikh Mbaye baax rek yow a sëñ am seen yàlla bu def sa fan. yaay soxna Mbacke na bu la laajee sa xarit waneel sa la xamee nga ànd ak nekk nii tàggoo wu leen sa maam rek la yaakaar de nee na lépp lu ñu am rek Cheikh Mandoumbé Xabane nee na moom rek la ñu am seen maam nee na xumaag fekk woon Serigne Touba nee fekk fa Serigne Mandoumbé moom war a dugg tedd ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nee na mu woo ko ba mu ñëw mënu ko lii am lu ci nekk waaye fekk nañ ma ko nee boobaag na nga ni tàqali ko moom. waaye ànd bii sama yaay nee ak dafa tal baax nee na bu la neexoon daay nu léegi jënd sobe doon sol te kon nañuy nangu waaye defu leen loolu nee na kër muy dem Ndakaaru di dem Makka da ngaa ñëw taal soto ñëw ba fi moom nee na toog ñaanal ko ne ko ñaan bii de Serigne Mandoumbe loo ko joxoon nee te képp ko tukkuwaale da nga si. nee na ñëw na te sot sax dalu ko nee na sot sax dalu ko nee sot ba am te màkk ak nga xam ne ñëpp a sot nee moom yàlla dimbali na ko ci jërëjëf màkk yi. maaram nga ànd ak soxna amit daal mu baax miy toog di seen jigéen di seen xarit di nit ko am jom ñu ngi lay ñaanal balay sa fi ngeen jëm yàlla na ngeen fay yegg waaye daa jëm ni ko koo xam ne communicateur yëpp bàyyi nañ ko xel muy kan Mohamed Sylla <laughs> laa ilaha illallah Mohamed Sylla mën a dimbalee mën a dimbalee communicateur yi koo ni Mohamed Sylla mun la xam naa ko ay waxam bëriwut waaye jëfam rëy na ay waxam bëriwut waaye jëfam rëy na mas naa ko wax sëriñ Mbàkke soxla loo ca Taïf damaa jàkkaarloon ne ko mor mor njaan na ma sàmba gàdd ndaak ndaak ak marama xëreeg pënd bu yow sëriñ Mbàkke xam nga nu ma la tudde mu ni si gat ni ma noo ma tudde ma ko mburu mu a ma luy mburu ma ne ko kaw gi daa xonq boo daggee gis weex kooku nag mooy Mouhamed Sylla mii toog Seydouna Mouhamed lañ ko duppee borom Kaaba ga kin duppee ba mu jubee Madinatul Munawwara naar yaa nga naa ko taalal badru alaynaa min saaniyatil wadaa wajaba sukkur alaynaa madaa alillahi daa ayyuhal mabuusu fiinaa jëta bil amril mutaa jëta saraftal madina marhaban yaa daa cey kin duppee Mouhamed kin duppee la yaay soxna mekk gi woon Mouhamed kin duppee mooy borom ngan Mohamed ki la duppee moo tëdd Madinatul Munawwar Mohamed ki la duppee Abdoulaye Baam Aminata Ndeem Bamba waay waay ku mu jaral sa fett sul waay Serigne Bamba lañ ko duppee Mohamed mii la ñu duppee Serigne Serigne Bamba Bamba bala si buri Serigne Mbacke Maram Mamba Salomi naawel maami Serigne Cheikh Mbacke solution Seex Masamba la sa maam tudd Serigne Moustapha la sa baay tudd Serigne Bamba la sa maam ci réew mi Xaadim Rasuul sa julli na ko tisbaari géej gi yoor yooram ndar timisu maayombe timisu wéer wéer fuuru jeewal fuuru saamoodi yoor yooram ndar sa maam a ko julli tey Serigne Seex Mbakke solution rahim nee na ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na di sant ku tedd gi Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul nga xam ne mooy sunu yaakaar fu nu mën a tàmbale ak fu nu mën a yem nee na fu nu mën di tàmbale nag ci moom rek lay yem alhamdulilahi rabbil alamina nee na dañu fi ñëw nag ci ñaari tànk bi ci njëkk nee na siyaare sunu yaay soxna Mbacke Gueye mee toog sunu xarit sunu yaayu xarit nee na ci jóge gim jóge ca bërëb bu tedd bee nee na di la ñaanal yàlla lépp loo fa mën a ñaan yàlla na ko sunu borom nangu te ful ko def ko ci njaboot def ko ci jullit yépp ci barkeb Serigne Touba. nee na mi ngi ànd ak sunu sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke solution di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu wayjur euh, man ak moom ak Cheikh Mbaye Gueye moom ak sëriñ bi ak seex Mbaye Gueye yàlla boole nañu nee na yàlla boole na leen nee na ba réew mi yëpp xam ko nee na moo tax Cheikh lépp lu muy lu mu xewle nee na yàlla nay doon jàmm rek waaye bu tegoon benn siis dong bu gestoo gis nu nee na dara Cheikh Mbaye Guèye tuutiwul ci ñoom nee na loolu moo tax tey jii bisu liggéey la nee na ñu tëj bureau yi ñëw fii ngir ànd ak moom ci mbégte mii nga xam ni dañ ko ko doon ñaanal di ko ci soññi doon ci waxtaan ak moom nee na bu ko yàlla dogalee mu def ko ba mu egsi fii nee na ñoom daal seere nañ ci mbégte mii nee na ñu fekk fi seen xarit seen sëriñ sëriñ Amsatu nee na muy nit ku baax ku fonk Cheikh Mbaye Guèye nee na ñu xam digganteem ak moom nee na mu jàpp ko ndax sëriñ Mandumbe Xabaan rek nee na lii rek la ko jàppe kon sëriñ sa ñu ngi lay sant bu baax ci jàpp gi nga jàpp sunu xarit bii xam li nga koy conseil xam nañ sa conseil ci moom. ak say ñaan ak say ñaan. yàlla na leen yàlla gën a boole. dañuy yàlla na leen yàlla gën a boole nag. ñu may ma nag. nee na ñu may ko tuuti nag. ma waxtaan ak sama yaay. nee na mu waxtaan ak ajurut soxna Mbacke Gueye mee toog. ndax ñetti yoon a ngi nii. ndax ñetti yoon a ngi nii. ñu tànt Abbas. ñu tànt Abbas. ma toog ci ron ma ronu baas. nee na mu ronu biir baas ba. jël fa kaddu jël fa kaddu. te lépp lu mu la wax. te lépp lu mu la wax. bu mu fa jógee. buñ fa jógee. balaa ñoo amaat jataay. balaa ñoo amaat jataay. sunu borom dogal loolu jàpp naa ne nee na kon jàpp na ni. heure bu mu la gisee. heure bu la gisee. am occasion bi am occasion bi. dana la gën a dénkaat sama dana la gën a dénkaat waayam ji. dana la gën a wax nga ñaanal ko. gën a wax ni ñaanal ko. ñun dey nee ñoom day bokk nañ ci nit ñi nga xam ne. bokk nañ ci nit ñi nga xam ni. benn sëriñ rek lañ wóolu. benn sëriñ dong nag lañ wóolu. wayjur muy wayjur benn sëriñ rek lañu benn sëriñ rek lañu yaakaar muy wayjur muy wayjur ndax loolu la ñu sëriñ Touba digal loolu yi la leen sëriñ Touba digal digal ma ko fépp fuñ nar a dem nee na fépp fu nar a dem di fa joxe sunu xaalis di fa joxe sunu xaalis ngir ñu jox ñu ay biteel ngir ñu jox ñu ay biteel nañ dajale nañ dajale alal nee na alal jooju das koy dajale jox ko wayjur yi jox ko wayjur yi xam nañ ne moo gën a ndax xam na ne loolu moo gën a gaaw ndax te ndax tey daaw daaw lan ko seereel ci baas ba lan ko seereel ca baas ba moom de waxut di warut di ko nettali. nee na moom warut sax di ko nettali. Cheikh Mbaye Guèye nee na Cheikh Mbaye Guèye. li ko wéy juuram seere li ko wéy juuram seere ca baas ba. warut di ko nettali warut di ko nettali moom. da koo jëf ba da koo jëf ba ko gis xam ne lii la ko waxoon. xam ne li yaayam waxoon xam ne li yaayam waxoon confirmé na ko dëgg la. ndax daa daanaka. nee daanaka. yóbbu nit màkka. yóbbu nit màkka. mooy daggal na nit daggal na nit. na ku la yóbbu màkka daggal na la huit saab àjjana. kon kooku nee na kooku. lépp loo wax ci fonkel. nee na lépp loo wax ci fonkel. ak yërëm ak yërëm. ak yërmande ak yërmande. topp ci ay at yu bari ay at yu baree baree bari topp ci. te incha allah te incha allahu taala. noonu lay demee noonu rek lay demee. incha allah incha allahu taala. léegi nag nee na léegi nag. li ma lay ñaan. nee na lim lay ñaan. mooy nga dogul ma. nga dogul ko fii nga toog. ci sa sa doom ji ci sa doom ji. xam nañ ne ba nga demee baytil haram xam nañ ne ba nga demee baytil haram. ñaanal nga ko ñaanal nga ko. ñaanal nga ñu ñaanal nga ñu. nga njaboot ñaanal nga njaboot gi. waaye lii. waaye lii. lu may sàkku la nee na da koy sàkku. su fekkente ne. nee na su fekkente ni. luy jaay la luy jaay la. ma waxee njëg nee boo ko waxee njëg gi mu jënd. ma fay ko nee mu fay léegi. waaye damaa bëgg. waaye nee na. damaa bëgg nee daa bëgg. ci àq njureel. ci àq doom ak njureel ci àqu nit ku defal nit ku defal way juram lu baax. ba xolam sedd ba xolam sedd. sagal ko ci biir sagal ko ci biiri nawleem. loolu laa lay ñaan. nee na loolu day la lay ñaan. nga def nga nga ko. nee na fii nga toog rek. jóge ci Seydouna Muhammad Rasulillah yi nga dogu. fii mu toll ren. nee na fii mu toll ren. bu déwénee bu déwénee. nay asaka yi fi mu. nee na fi mu jëm déwén. fii mu toll ren bu déwénee na doon ay asakam. na doon asakam. yaay soxna nee na ma ñëw. dama ne. damaa bëgg. nee daa bëgg. gën gaa gàtt. gën gaa gàtt. bu déwénee bu déwénee. na ko yàlla jox juróomi milliards yu set. na ko yàlla jox juróomi milliards yu set wecc. yu sedd guy yu yu ànd ak dal. yu ànd ak dal. ànd ak amul maa amul maa samba. amul neene amul neene. ku dul yàlla ku dul ak way juróom te bu loolu ñëwee. nee na mu mën koo bokk ak ñun nee na mu mën koo bokk ak ñun ñëpp. barke Sëñ Tuubaa incha allahu taala. ñu damaa fàtte woon it. nee daa fàtte woon it nii. soxna ami mi soxna ami daan mi toog. di ko baax di ko baax. di sunu sëriñ moom tam. di seen sëriñ. di sunu mbokk di seen mbokk. di nit ku baax di nit ku baax. ku am diggante ak Cheikh Mbaye. nee na ku am diggante bu rafet diggante ak Cheikh Mbaye Guèye rafetal ko nee na rafetal ko. nee na indi na ay teraanga. lépp lu seex xewle. lépp lu seex xewle. mu ànd ceeg moom mu ànd ceeg moom. seex Abdou Lahad Guèye mi seex Abdou Lahad Guèye mi toog. moo nekk ci sëñ Mountakha. nee na moo nekk ci ku tedd ki seex Mountakha. mu nekk xaritu seex Mbaye. nee na mu nekk xaritu seex Mbaye. ñëw fi ñëw fi. fekke waale jotaay bi fekke waale jotaay bii. ñi ñu fi fekk ñëpp. nee ñi fi fekk ñëpp. ñi ñu xam. ñi xam. ak ñi ñu xamut ak ñi ñu xamut. ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di leen sant di leen sant. leen gërëm di gërëm. soxna si soxna si. képp ko am doom. nee na képp ku am doom. doom doom. boo sañoon boo sañoon. mu neex la mu neex la. mu neex say mbokk mu neex say mbokk. neex say xarit neex boo sañoon it boo sañoon it. mu sigil la mu sigil la. sagal la sagal la sagal say mbokk. te Cheikh Mbaye Guèye Cheikh Mbaye Guèye day. lépp lépp heure bu xëyee. nee na suba gu xëyee. lu lay sagal nee lu lay sagal rek. lu lay sigil lu lay sigil rek say bokk loolu rek lay dox loolu rek lay dox. xam nañ ci lu bari nee lii de xam nañ ci lu bari. askan wii nag askan wii nu bokk nag. yàlla na ko yàlla def. nee na yàlla na ko yàlla def. yat wi dal ko moom yat wi nag dal la nag. ndax bu ko wi dalee nee na bu la yat xam na ne moom mën na am na xolu. nee xam na ne am nga xolu taw askan wi. kon yàlla na ko yat bi dal. yàlla na la yatu teraanga wi dal. barke Xaadimu barke Serigne Bamba. xam nañ ne xam nañ ni. Euh, askan wu ne. askan wu ne. am na ku yàllay tànn. am na ku yàllay tànn. yëkkati ko mu yëkkati ko. waaye moom mii waaye moom mii toog. tàmbalee na ci moom tàmbalee na ci moom. waaye yàlla na ko yàlla yëggale yàlla na ko yàlla yëggale. ba mu am benn ba mu am benn ndox. yàlla bu benn ndox. kon soxna si kon soxna. soxna si soxna si. soxna Mbacke soxna Mbacke Gueye. maa ngi lay seedeel ne ah Mouhamed si la nee na mi ngi lay seedeel ni ni nga ko gërëmee yow yaayam nee na ni nga ko gërëmee yow mi yaayam ñun ñi ay xaritam nee na ñoom ñi di xaritam noonu la su ko gërëmee te dañoo ànd ngir yàlla te dañoo ànd rek ngir yàlla ndax kenn ku ci nekk ndax kenn ku ne sunu borom defal na sunu borom defal na la lu tax bëggoo doon lu tax bëggoo doon sa morom waaye yàlla dañoo boole waaye yàlla dañ na boole boole goo xam ne boole goo xam ni adduna bépp xas nañ adduna bi yëpp xam nañu yow mii di way juram nee na yow mii way juram xam nga suñu diggante xam nga seen diggante bi nga taxawee fii léegi bi nga taxawee fii léegi li nga wax li muy gàtt gàtt nee na li wax li muy gàtt gàtt. moo gën lépp nee na moo gën lépp. moo tax xamee nañ ci nee na moo tax xamee nañ ci ni. mënuñu woon a bañ a ñëw a bañ a ñëw. kon lii ñu def kon ñu lii ñu def. suñu warteef la suñu warteef la. lii ma lay wax nag nee lii muy wax. sama xol la tudd ci xolam la ko jëlee. damaa bëgg nee dafa bëgg. bu fekkee luy jaay la nee na bu dee luy jaay. am nañ njëg am nañ njëg léegi wax ñu ñaata la waxal ñaata la ñu jënd. waaye damaa bëgg. waaye nee na nga tibbee ko nga tibbee ko sa xol nag yàlla defal ko sutura yàlla defal ko sutura defal ko taraanga taraanga defal ko mucc mucc yàlla bu la defalee ñett yi yàlla bu la defalee ñett yii. lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biir. te xam nañ ne. te xam nañ ni. bu ko yàlla defalee. bu ko yàlla defalee. doo sonn doo sonn. sa askan du sonn. aw askanam du sonn. sa njaboot du sonn. aw njabootam du ñu sonn. képp koo xam ne. nee na képp koo xam ni. si yàlla boole na la ci. yàlla boole na la doo ñaxtu doo lool loolu moom mën nañ ko nee na loolu daal mën nañ koo seere ci Cheikh Mbaye Guèye mii. nee na ñu ngi la koy ñaan. nga ko nga dogu ko. xam ne ñaan nga ba sonn. nee xam nañ ne ñaan nga nag ba sonn. ca Makka ca waaye lii. dafay baaxantal. daa baaxantal. ndax ñetti at. ñetti at. lu ma la mas a ñaan rek nee lu mu la mas a ñaan rek. buñ fa jógee buñ fa jógee. sunu borom def ko ko. kon damaa ba may ñaan bu njëkk. dani Mouhamed nee na ba muy ñaan bu njëkk. damaa limité woon sama daa limité woon ak ñaanam. waaye comme xam naa ne waaye na ni nag. léegi am yàqin. léegi dafa am yàqin nii. loo wax yàlla loo wax rek yàlla dana ko def. ci moom ci moom. kon kay kon kay. amatuñu yem waay amatuñu yem waay nag. waaye nag waaye nag. fii ak déwén fii ak déwén. juróomi milliard baax na. bu déwénee en attendant juróomi milliards. bu déwénee bu déwénee. bu normalé bu normalé. ñu continuer ñu continuer rek. incha allah incha allah bu normalul ñu bu normal cinq milliards yi baax na. kon baal ma dem mu dogu. incha allah. nee na njëkk koo jur mujj koo jur. nee na ñi mu jaboote ñépp ko bëgg. waaye nag. nee na da ngaa dikk rek yent sa bopp ci moom. nee na lépp loo xam ne bëgg na ko ba teg la ko. nee na boo ko doon wër di ci xeex ba rente yi da nga ko andi nee na wala moom mooy dem ba yërëm rek li la bàyyil waaye bu dul loolu nee da ko def waaye ren jii nee na dem mag gi rek la ci mën a tudd waaye am na yeneen yi de ci biir yoo xam ni nee na ni nga ko bett ci Seyduna Muhammad mii nee na mu doon ko ñaan ba nga gënegul àdduna ba nëga ni nee na yàlla dogal jaaral loxo te yëgu tinut nee na ba lépp pare nee na yow da yaa limité sa ñaan rek waaye moom day ana ana Mohamed ma ma ngi may dégg bàjjan soxna Mbacke Gueye nee na yéen ay limité de waaye balaa weer wi des si déwén ooy juróoy ñaan nee na dagam yaa seral xolom bi nii nee na ni mu la bettee yàlla na la yàlla bett ci xeeti teraanga yëpp yooyu yal na la yonent bi bett nee na loo man ren ji ba def ko bu déwénee yàlla na nga man fukk ak juróomam nee na yàlla na la jig nag nee na la xeex yàlla na daanu ku dal sa kaw yàlla na daanu ku la yéene jàmm yàlla na ngeen ko bokk nee na ñëpp la gërëm nag doom yëpp waaye li nga def rek la wax de nee na loo bëgg yaa nga ci waaye nag lépp loo bëgg yàlla na ko yàlla def laa ilaaha illallaah